tey jii woo nañ Agibou Soumaré mais justice boobu kenn wóolootu ko bu demee ba Ousmane Sonko di porter plainte nit ñi di poser question naan kii di Ousmane Sonko day porter plainte waaye du am dara ci kanamu yoon mu mel ne léegi boo nekk opposant wala koo xam ne ànd nguur gi léegi yow yoon nekkatul la fi alors que la loi elle est générale et dem ba ne yow léegi euh, Ousmane Sonko mun na porter plainte du mujju fen te moom buñ ko porté plainte mu mujj fenn ku yaakaar ne justice bi mooy seetal Ousmane Sonko wala moo koy may jàmm yaa ngi nax sa bopp parce que nag yoon dafa jeng nañu baal Hadjibou Soumaré ñu ne set 7,7 milliards bi Macky Sall ñëwee ne day euh, bi dalalee gan gi di Marine Le Pen léegi bi Marine Le Pen yi ñibbi da ko jox yóbbalu 7,7 milliards dëgg la est-ce que mbaa du dëgg mais ji nga sunu borom yàlla yàlla dafa juste nit moo juba di mais Dieu est juste biñ jëlee alalu réew mi ne dañ ko jox Marine Le Pen mbir mi jur coow mbir mi du alal ji mbir mi xam mooy lan lan lan doon nëbbatu ci audience boo xam ne dalal nan Marine Le Pen audience ba jeex. publier wuñ ko ci journal officiel ak surtout gouvernement bi mais aussi conférence de presse conjointe bi ñuy faral di def maanaam bu benn kilifa ñëwee moom njiitu réew wala ministre des affaires étrangères ñu daje waxtaan ci lan doon gisee ñoom ñaar bu doon loolu lépp def nañ ko Marine Le Pen du dem jàkkaarloog Mamadou Ibra Kane di wax ni moom Macky Sall dalal na ko te pourtant dañ ko doon nëbb lan lañ doon laxatu. làqatu boobu nag moo indi nit ñi di jeex di jeex di jeex di jeex ba gis 7,7 milliards yoo xam ne jox nañ ko yóbbal Hadjibou Soumaré posé ay questions mais Hadjibou Soumaré ay questions la posé mais question yooyu réponse lañ ciy xaar xaaruñu Hadjibou Soumaré dem ci kanamu takk der ñu koy laaj muy tontu mais nanu nguur gi tontu ci ni loolu dëgg la loolu dëgg loolu rek la ñuy xaar. maanaam nguur gi nan ñu tont ci ni loolu dëgg la warul du dëgg bu dul dëgg ñu ne Hadjibou Soumaré kat juum na parce que ji nga homme mi ni Ousmane Sonko ku mënti doon jaruñu yóbbu kaso jaruñu tëj jaruñu porte plainte homme politique crédibilité la kàddu ji nga bu dee nii tey Hadjibou Soumaré loolu mu wax du dëgg te nguur gi firndal na ko Hadjibou Soumaré mënatul wax lu nit gëm jaru yóbbu ci yoon mais nguur gi dañu tàmmal mbiri xaalis cawal xaalis Bougane tudd na fi Mansour Faye ci mbiri xaalis pour pourquoi woowuñu Bougane Gueye pourquoi Agibou Soumaré question boobu jërë posé la pourquoi woowuñu Bougane Gueye te Bougane moo gën a rëy làmmiñ foofu Agibou Soumaré lu tax euh, ñu fi tudd ay alal ju bari xaalisu corona baa ngi nii déggu gun ci kun woo haute cour de justice taxawal gun ko furaat dallu xëddeen te looloo gën a garaaw ci àddina ndaxte deretu askan lañ doon mucc Cour des comptes génne ay xibaar Mansour Faye weer leen jàppe leen ñoom ay homme politique comme comme na ko Moustapha Diop dafa woon ca Cour des comptes mais loolu lu jaroon a leeral la mais ñun danoo yor askan woo xam ne tamit danoo amnésique danoo gaaw fàtte dañuy umpale lu bari parce que yooyu yëpp tey jii waroon na laaj taxawaay mais ñun nag suñu askan tamit am sikk ñun sénégalais yi ni ñuy xeexee pour Ousmane Sonko nekk candidat ni ñuy xeexee ci mbir Adji Sarr ak ñoom seen mais noonu lañ war a xeexee pour suñu deniers publics suñu alal ñu sàmmal ñu ko mais boo wootoon ci mbedd mi tey ji doo gi téeméeri nit moo tax gars yi yab ñu yab goo xam ne saññu fopp suñu alal sàcc ko def ci lu leen neex te du mujj fenn looloo waral te benn sa Seck ñu tudd ko ci mbir yi sàncewu ca tey ji mu toogaat ñëw naan day bëgg a nekk président keneen ak keneen maanaam fi ñuy yóbbu suñu alal ak fi ñu ko jëmee loolu dafa war a doon lu ñor askan wi ñor laa société civile société civile boobu damay wax forum civil man déggaguma leen ci mbiri Hadjibou Soumaré ak euh, Marine man déggaguma leen ci mais tey jii mbir moomu maa ngi fàttali mbiri Alex Segura bu dee Modou mi ngi may dégg mi ngi koy fàttali Alex Segura ab représentant la woon bu FMI bu ma juumul nan bu ma juumee nan ma baal ñëw fii di ñibbi Ablaye Wade jox ko yóbbal yóbbal matul sax cent million ji nga loolu moo defoon la une des journaux maanaam yéenekaay yi ci Sénégal def nañ presque une semaine di ci wax singili Abdoulaye Wade ci koo xam ne dafay ñëw di ñibbi mais gars yi corruption la nga ko tudde woon mais nit singili woon Abdoulaye Wade ci mbir moomu mais lii moo ko gën a garaaw foofu fekk nit koo xam dafa bañ nit ko ñuul di boddi kontere koo xam ne tey ji bu fal woon tey ji ca France ñu bari duñ am doole maanaam nit ñu ñuul ña fa ne ñu bari dinañ tumuranke ñu dalal ko ci réew mi di ko nëbb ñu jël leen ni yëkkati na ay koppar jox ko xoolal loolu mais loolu nag bu amee bu mu bett kenn ndaxte Macky Sall day fekk ki ñuy gën sàcc ginaar mu dénk ko ngunu la Cheikh Oumar Anne kuddu Mame Mbaye Niang Prodac xaalisu Prodac bi léegi kenn waxul ne Mame Mbaye Niang na wax fa la suñ xaalis dugg ñu naan na Ousmane Sonko ma ko wax waru koon wax wala na mu juumee ci IGF. président Macky Sall mi balaa muy falu ci réew mi daf ne ñu am na juróom-ñetti milliards mu ñu ñu ni ko foo ko jëlee ñu ne ay largesse Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade na may wax ko nga gis fi ay fonctionnaires yoo xam ne kii di Farba Ngom këram ñu ne sàcc nañ fa huit cent millions huit cent millions fu ñu ko sàcc kay ay milliards a fa doon nalaw milliards yooyu fu mu ko jëlee est-ce que lijjanti nañ ko tey jii dund gi ñuy dund mu doon coono ba dund gi yëpp yokk sénégalais xiif lenn moo ko indi. mooy sunu alal ñun sénégalais yi ñu laan six mille quatre cent milliards budget alal jooju di dugg ci réew mi baadoole yi gisuñu ko alal jooju fan lay dugg est-ce que dañ koy jox ay ma Le Pen ak est-ce que dañ koy liiw ak wala lee ñun wóoruñu mais yooyu moo jaral leeral te loolu moo laaj taxawaay parce que tey jii président Macky Sall bu ko mari Le Pen woon en tant que Macky Sall garaawul mais njiitu réew bu Sénégal la dafa ñun dañoo am droit sunu njiitu réew bu duggee ci dara mu rendre ñu compte. wax ñu position wax ñu taxawaayam comme la xew ca Tunisie mu wax ñu ci xalaatam wa wax ci gis-gisu état wu senegal maanaam boo gisee ñun ñuy ngat-ngat di sonn ci wax ji mooy loolu mooy ñun amuñu problème mu président Macky sàll ndaxte bu doon Macky Sall ak jëmmam rek mën na am du ñu ñor Abdoulaye Wade jóge na fi tuddatun ko ab Abdou Diouf jóge na fi tuddatun ko Senghor yàlla na ko suñu borom jégal waaye yow nag da laa dénk suñu réew dénk la suñu destin dénk la suñu ëllëg kon looy dugg. looy dox looy wax ak koy jëflanteel ñun dañ ko war di xam maanaam lépp ñu koy def ci transparence ci gouvernement boo xam ne day doxal ci jub ak jubal lépp liy ndëngatee mu doon loo xam ne dañ ci war a musal ki la Idrissa Seck waxoon damay dellu ci ay kàddoom de déclaration de politique générale dañuy fexe ba xeex njublang waaye dooleel góor góorgóorlu pour man foofu la ñu toll ak sénégalais yi maanaam xeex njublang yi fi ne mais fa yéene dooleel góor te tollool taxawaay lay laaj mais taxawaay boobu mënoon na ñàkk bu doon ni justice mi ngi def liggéeyam bu doon ni yoon jengul waaye tey jii ñi ñuy tudd ci ay rapport di leen tudd ci ay mbir di leen tudd ci lii ak lee mais taxawaay bi dafa des bu dee ki nga faral doo mujj fenn waaye bu dee opposant da topp ba mu sës ni Cheikh Agibou Soumaré loolu mooy mbir mi léegi nag ci mbir Cheikh Agibou Soumaré lay daanele di wax ni nag dafa am benn piège boo xam ne dama bëgg ñu bàyyi ci xel ah Cheikh Agibou Soumaré dafa génne lettre am ñu woo ko ci yoon bu demee mën nañ ko accuser diffamation diffamation ba pare jël daan teg ko ko xam ne Cheikh Agibou Soumaré du enjeu pour sénégalais yi Sonko mooy enjeu bi léegi bu ñu ko tegee daan bi ñu naan ah, Cheikh Agibou Soumaré teg nañ ko daanu diffamation accepté na ko kon Ousmane Sonko am Mame léegi léegi buñ daanee Ousmane Sonko moom te da ko war a nangu est-ce que Cheikh Agibou Soumaré dugalul ko ci loolu parce que moom tamit élément wu système bi la yàlla rek moo xam man loolu tax ñooñu mi Cheikh Agibou di keneen ak keneen man dama ciy teey parce que élément wu système bi la te Ousmane Sonko dafa ñëw pour xeex ak benn système bu fi yàgg te Cheikh Agibou Soumaré nag système bii dox ci Sénégal ak da cee yàgg kon na nit ñi tey ci Cheikh Agibou bi ñu jël teg ko naan da koy yóbbu ci yoon mun na doon ñoom rek seen i mbir seen i tappale ak seen i dóor pour que bu ñu demee ci mbiri Ousmane Sonko ñu ne ah comme yóbbu na Cheikh Aguibou Soumaré ci yoon moom nangu na ni diffamation la def léegi Ousmane Sonko tam moom daan na nangu alors que daan Cheikh Aguibou Soumaré daan bi ñu koy teg mu koy accepté mais daan boobu bu ñu ko tegee Ousmane Sonko mu sànku parce que enjeu bi yëpp mooy Ousmane Sonko dafa war a doon candidat te bu ne sursi wala yenn somi ci xaalis teg na la ko mënatoo doon candidat kon atte bi ñuy atte Cheikh. Hadjibou Soumaré ak Ousmane Sonko bu mu doon benn kon bu nu mbubboo si Hadjibou Soumaré ngir mën a dal ci kaw Sonko ah man damay xalaat rek de ma ni lool moo am de waaye réew mi booy xalaat del xalaat rek del xalaat ci lépp del bay xel ci lépp ndax gars yi danoo bari pexe te juba jubadi